nga génn nekk di galère di wëri waat parenthèse parenthèse boo génnee keneen kii ñëw mu doon eh, déet nag du noonu bu doon deux cent mille la du noonu yow génn nga bañ nga ah. bañ nga ah. keneen kii ñëw loolu la fay fekk day jàpp ni lii moom mooy moom mooy barem plus gis nga man génne na ma damay génn dem génn na ma sama kër trop damay génn dem damay defar sama kër d'accord damay génn nga wutaati caution dawaat ay caution kër ga ñaar soit da nga fay dëkk si waaw ki comme ma bayer dafay dëkk si wala su wala su fekkee defaru ko gis nga li deux ans de location la lay remboursé. deux ans nga yaakaar ni professeur nit ku yorul yenn doole yi wala yenn kii tal na loolu noonu. nga yaakaar ni nit ki tal na loolu c'est-à-dire non man loolu mooy problème c'est-à-dire sénégalais yi. droit yi li leen yoon may. jëluñu ko yow yow yow par exemple euh, Birame man d'accord ma si li nga def yow par exemple yow war sa bay waroon nangu sa bailleur écrasé la. ah oui pourtant pourtant nii la ma ko waxee. ça ne me concerne pas nga ne que ça ne te concerne pas kon doo citoyen sénégalais nga ne que man laa loi man na ça me concerne man bi su ma fayoon sama location locataire bi wax ma loolu bi xëccoo bi bi yow bailleur bi yaa yow locataire bi yaa koy dund yàgg sa njaboot après. su fekkee ne woon location deux cent mille francs dana la fay deux ans de location. ah su si demul dëkk. Ah. ba euh, ah, pare boo ki moom da ngay deux ans de location. waaw da su transformé su transformé ba pare. dafay dëkk. su fa dëkkul wala yow nga dellu si waat biir kër gi. même su fekkee dellu si en tout cas yow la war a njëkk proposé. waat yow la war a njëkk proposé en tout cas même soo dellu si. et puis pare même prix bi la war a jox. da nga deux dafa lay fay deux ans de location. mais Sénégal mais xamuñu exactement loi boobu lan moo ne ci biir boo ñëwee déjà li ñu njëkk a wax nit ñi dañ cee sonn de professeur moo tax ma am ma ma profité laaj la ko nit ñaa ngi ciy jooy sonn nañ ci da ngay ñëw par exemple bu dee pour euh, caution bi dañu ne ah. da nga war a joxe un mois n'est-ce pas loolu la ñu war a wax mm-hmm. un mois de de truc de caution ak un mois avance ah. du deux mois ah. ba tey génn gu ci trois mois yi non non non même deux mois bi sax deuxième mois bi da nga koy fay échelonné ci biir mois bi pendant un an xam nga loolu loolu la loi bi wax Euh, loolu xam nga lu tax muy jafe. Hmm. ñoom su ko bëggulee appliquer xam nga lu tax muy jafe parce que yow doo ko loolu doo si nekk tant que nekkul si tant pour nga dugg si kër gi foog nga joxe loolu quoi. mais troisième mois bi du yoon. non du yoon. du yoon ñu ngi koy nangu parce que mais loolu loolu soo demee euh, c'est-à-dire da ngay dem si organe de de de contrôle yi loolu rek nga mën defam ah. wala organe de moo xam ne dëgg la da ko dul jaral gars yi ñu ne fi di wër di def parce que ñun administration wala soo xasee ba dugg. itam da ngay am ay kii gis nga. trois mois nga ma laaj ma jox la trois mois su ma ko amee mais su ma xasee ba dugg premier mois bi ne ko du ko fay parce que fay naa ko déjà. ba pare xam nga moo garaaw. fexe mu nekk deux nga xam da nga. léegi boole sax léegi dañ lay laaj.